ndax xam nga ne tàndarma ji ngay lekk ña ko jiwoon faatu nañ te bu ñëpp defoon na yow kon tàndarma dootu am ci àdduna moo tax moom mu weddi woon njariñ loo fekk téere yooyu nag téere yuy defar jëmm la lu mel ne xasida yi nga xam ne da koo def ci tàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga baal ñu rek dafa mel ne sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre moom mooy yegg si porte parole xalif général des mourides oto bi nañ ko euh, maam Cheikh a Fall Lamp euh, donc euh, dafa mel ne waaw sëriñ Bass Abdou Khadre la waaw mu jërëjëf sëñ Bamba xàmmee nañ ko moom muy jàmbaar lool ndax bi ñu ko bi ko ko Alaaji Baara dénkee ba léegi 2009 ba léegi mi ngi koy matale sëñ Sidi naka noonu euh, sëñ Muntaxa naka loolu. loolu nag li ma la ci jox tegtal mooy. Mhm. sëriñ Saliou Mbacke moo ko ko ñaanal. Mhm. moom bokk na ci ñi mujj liggéeyal sëriñ Saliou. ndeysaan ay tool yu ko sëriñ bi santoon. Mhm. demoon na ba yëkkati dara di ko ca jox di ko ko jàppale sëriñ bi ne ko. dama bëgg nga ñaanal ma ma am ci lu kawe sama njort. ndax sëñ Tuubaa boo ko defalee loo man da lay defal loo mënut. boo ko defalee loo mënut mu defal la joom Mbàkke liggéey bi ma lay liggéeyal lu ma jomb laa ci bëgg waaye bi mu ko defaree ba mu yegg sëñ Tuubaa sëñ Saaliw daa téye ci loxoom ne ko yàlla na la sëriñ Tuubaa sa maam liggéeyloo te ñaani sëriñ Saaliw yàlla du ko delloo waaw du tag ah du tag fenn moo tax moom nii mu ko yore nii nii mu mm-hmm. mën a doxalee mm-hmm. nii mu mën a doxalee nii mm-hmm. maanaam porte parole bi waaw nga xam ne maanaam moom dong ko mën da kii xanaa moom dong ko mën ndax dis na dis goo xam ni laaj na waaw du tontu du tontu du fayu du téesante mhm. du meroo mhm. du xuloo du tongoo du bàyyante moom sëriñ bi rek ko ñor ci la ne mhm. waaw masta am benn nitam boo xam ne bàyyi na la kum am téye na la waaye nag Cheikh Mahamadul Muntaxa rek lay topp lu sëñ Muntaxa bëgg moom rek la bëgg lu sëñ Muntaxa bañ moom rek la bañ moom daf maa wax ne ma maanaam joomu aadama ab sëriñ day yennul aw gàngal kilifaam moom sëñ Muntaxa lay déglu lu sëñ taxa bëgg rek bëgg na ko tey dama lay xamal ne la sëñ Basiru ngërëmal sëñ tubaa li mu bëgg bu ko ci adduna bépp bàyyi woon tam am ngërëmal sëñ tubaa moom dafay mel ne ñàkku dara adduna bépp buñu maase woon di ko gërëm te amul ngërëmal sëñ tubaa rek xam ne amul dara moo tax mu xam ne mbir mi mu ngi ci am ngërëmal sëñ tubaa mu a dan na magam ju baax ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha te boolewu ko dara lu mu ko sant mu def ko ba defe ko na kawe njortul Cheikh Mouhamadoul euh, Mountakha loolu ñu jàll ci ma ñu surux ci tuuti rek wax ci sëriñ Basiru mu sëriñ tubaa balaa ñuy ñëwaat ci waxtaan wi ndax turandoom ku ku amoon euh, cër la ci Serigne Touba. wallaay defar defar defar moo doon mbiram. Ah, waaw nga xam ne mooy. islaahu saatul eh, bayni mooy mooy leeram tey waaw. sëñ ma Dieng ba mu koy martial dana mu def islaahu saatul bay bayni mu dib liggéeyam faawu doon a may ni te du ca daj ci mukk daawul naagu loo gën a nëx muy gën a teey xam nga nit ku defere kuy defaree Bamba da ngay am ak dal da ngay am maanaam grandeur sëñ Basirou mboole lu mas a yàqu ci yoon yi moo ko defar mm-hmm. Basirou Euh, euh, Magi bas mooy Cheikh Mahamadul Moustapha Cheikh Mahamadul Moustapha lañ daan wax Moustapha Magi Bass mhm. loolu li ko waral mooy sëñ Basiru dafa doonoon loxol ndeyjooram lépp lu mas a yàqu ci yoon wi ak ci yoon wi ñi bokkut sax ci tarixa bi sëñ Basiru moo leen di defare ci xel mu rafet ci baax ci bëri xam-xam mhm. damay wax ne képp ku nekk ci jamono jii mhm. bëgg a xam ci sëñ Tuubaa lu wér faaw nga dellu ci téereb minul baaxil xadim faaw nga dellu ci maanaam Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana ci irwa u nadim ñaar ñooñu ndax sëñ Basiru dafa nekk ak Sëriñ Tuubaa ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne tàgguwuñu ko waaye nit ku mënoon a defarale islaahu saati defar ay diggante sëñ Modou Lamine Diop Dagana tamit moom it am na solo de maam eh, kooku kooku kooku ah, kooku kilifa la rek tuuti rek kooku kilifa la fi mu ne fi mu ne fotub Sëriñ Tuubaa bii mu jëggéen rek ñuy nattable moom la wala du moom mm-hmm. buñ demee ba xam ne moom la am ci yàqiin man koo dëgërloo mm-hmm. lu mu ci bindoon ba noppi wax doj ya newoon ci biir pax ma wax bi sëñ bi wàccee ci pax mi wax ko yoroon pikk ba wax ni mu dóoree maanaam pikk bi ci kaw doj wi da koo bindoon moo tax bi ko gars yi jàngee gisaat image moo tax bind day sax waaw moo tax nit bu la tooñee ci bind da ngay fayu ci bind waaye boo fayoo ci wax rek wax ji day far waaye bind moom dafay des Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana murid yëpp ko yoreel njukkal mhm. ndax moom da doon bind rek da doon bind rek xam nga bi ñuy fondement jumaa ci mënoon ah, la rek mhm. comme événement ko jàpp ne comme ni ko waaye borom xam-xam day gis lu ñëw xeer yi nga xam ne moom juróom-ñaari xeer ya woon ci biir ba bind ni sëriñ bi yëkkate waale pikk bi dóor ko ci kaw xeer wi mm-hmm. ak ni mu laajee turéel bi mm-hmm. maanaam sëñ Maxtaar bi naa jël tibb ci gamaat bi ci ci maanaam tubaab baa ngi jàkkaarloo mu tibb ci gamaat bi jàng ay aaya def ko ci tegal nga xam ne loolu bu ñu xoolee photo yi moo lem li Cheikh Mouhamadou Lamine Diop danga na wax dañ koo gis ci biir photo yi mais loolu la ñu gis exactement ci photo yi lañ gis exactement mm-hmm. ba noppi nag doo ko xam ne nag sëriñ bi kii mooy sëriñ bi. waaw ñi nekkoon ci ginnaaw nag ñooñu ñan la. d'accord. waaw mënuñ leen a xam ndax a dafa yàgg na waaw ndax sëriñ bi ñëpp doon soyee si ci moom. Mhm. te sëriñ bi ñi ko gën a jege ñu xam leen. Mhm. ñu ci bëri amuñu ay photo mhm. waaye Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana. moo ñu ci décortiquer pax mi ak li ci xew. ba boo xoolee image bi mbind mi mooy wax. mbind mi ndax da ngay gis doj yeeg yëpp doj yi sax da nga lépp ngay gis benn par benn kooku kiimaan la radiyallahu taala an wa ardaaw murid ko ndax bëri na tey man lu ma xam ci sëñ Tuubaa moom moo tax ma xam ko bëri na lu ma xam tey ci karamay sëñ Tuubaa ci almina ul moom moo tax ma xam ko bëri na tey lu ma xam ci sëñ Tuubaa ci tukkim bi ci géej gi ci irwa u nadim laa ko xame bëri na tey ma xam ci sëñ Tuubaa ci lu mu daan waxante ak naari gànnaar yeeg ay dénkaaneem ci moom moo tax ma xam ko ak Cheikh Mahamadul Masir euh, kon sëñ Basiru nag mooy waajur Cheikh Mahamadul Muntaxa sëñ Muntaxa na ñëw jël sëñ Basiru dippi ko rek defar rek mooy mbiram lépp lu yàqu ci diine lépp lu yàqu ci diine rek sëñ taxa da koo fekkeewul sëñ taxa dem na ba Sénégal gépp dañoo wax ne dañ ko war a jiital def ko muy xalifatullahi fil ard ndax mën a defaram lu waaye xewle moom ngay njëkk seen alalam ay nitam ay waxam lépp lu xewle muy bànneex wala naqar sëñ Muntaxa ngay njëkk séen ak koo mën a doon ba ca biti yow ko kuy yónnee ba yónnee Turquie Turquie mooy bi fa tremblement de terre ba amee di yónnee ba yónnee Maroc. waaw euh, sëñ bi baal ñu ministre de l'intérieur euh, ñëw na général Jean-Baptiste Tine euh, yegsi na ni ngeen koy gisee ni ci image yi. Voilà donc l'arrivée du ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, qui conduit la forte délégation gouvernementale euh, donc envoyée par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, ici dans la ville sainte de Touba. Vous savez que le président de la République donc a juste séjourné à Touba il Donc ça ne fait même pas encore une semaine avec cette troisième venue du chef de l'État ici dans la ville sainte de Touba. Il est accompagné de Cheikh Djili Mbake, euh, bras droit de Serigne Bassirou Mbake Abdou On voit également le ministre de l'Agriculture, euh, Mabouba qui accompagne le ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine, qui est là et qui euh, notamment conduit la forte délégation gouvernementale accompagnée, euh, envoyée par le chef de l'État à Touba à l'occasion de cette cérémonie Euh, ki nga xam ne moom moo di général bi Jean Baptiste Tine ministre de l' intérieur yegsi na euh, moom nag moom moo jiite délégation gouvernementale bu mag bi nga xam ne président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye fay envoyé na ko fii ci Touba. général bi nag euh, di nekk nit koo xam ni ku woyof la ku woyof ku baax ku dal ku tey moom la général Jean Baptiste Tine mi ngi nii nag di nuyonte di nuyonteeg di saafonteeg ñi nga xam ñoo ji kilifa yi dafa mel ni sëriñ sëñ ko solay nuyu noonu Euh, mu ngoog ànd ak euh, ci wetam gis ngeen ko Cheikh Jili Mbacke nga xam ne mu jege lool Serigne Bass Porokhane Serigne Abdou Lahad Bousso moo sol lu Bousso euh, lu bëlali noonu a comité d'organisation bi tamit nga xam ne ñu def liggéey bu am solo gis ngeen ko nag ministre bi yegsi na donc nag bu yegsee moom xam naa ne dootu yàgg dara li nga xam ne moom moo di kon cérémonie officielle bi maanaam tàmbali laata nag kilifa gu mag gi war a teew sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke ànd ceeg nga xam ne moom moo di kon rakkam di léppam mu di sëriñ Basiru Mbacke euh, sëriñ Basiru Mbacke Abdou Khadir def liggéey bu am solo wax dëgg yàlla mu nekk bis bu am solo gis ngeen ko ni Moustapha Amadou Moustapha Njek Sare mi ngi nii du nuyoo moom moo di ministre de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement moom tamit euh, ñëw na du nuyoo kon moo sëñ bi mu nekkoon arrivé délégation yi sànq ñi ngi woon ci tomb bu am solo jërëjëf xam nga Cheikh dafa am lu ko nituk yàlla ma sa wax nituk yàlla ku mag muy Cheikh Sidil Muxtaar radiyallahu taala anhu wa ardaahu daf ko wax ne ko yaay samay bët yaay samay tànk yaay samay loxo yaay bët yaa may gisal yaay samay tànk yaa may doxal sama loxo yaa may jàppal te ki wax loolu borom cër la ci yàlla mhm. nitu yàlla wàlliyu la ku am gis la sëñ Basiru lii mu def nii moom doo nga ko man mhm. ndax sëñ Tuubaa boo koy liggéeyal boo koy liggéeyal moo lay defal loo xam ne boo ko defee ba noppi dañ naan lii diw rek ko ko man waaye yow xam nga ne Cheikh Ahmad Bamba ni mu doonee ndaw nekk ci ay biir yu mag ba nag ni kenn mësu koo gis mu tarxiis mhm. yàlla na yàlla na jëm kanam yàlla na ko yàlla lafal cat musul ko ci mboolem dog yi mhm. waaye nit ku am maanaa la nit ku am solo la mhm. nit ku yéeme la ku man li muy def la màggal gi buñ la waxoon lim ci daj ak lim ci innové maanaam innové maanaam nga xam ne moo ko ci dolli ñu yaatal ko